أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم إخوة الإيمان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته comme niñ ko baaxoo def ci samedi bu nekk ci waxtu wi ñu dajawaat ak yéen ci téere yàlla bi subhanahu wa taala ba tey ñu toll ci suratul baqara ñuy tàmbalee tey ñu ngi tàmbalee aya cent quatre-vingt-huit mu nekk benn aaya bu ñu borom bi subhanahu wa taala di jàngal ñetti mbir bi ci njëkk mooy xurmatu aklu maalal muslim bi gayri xaq sawaun kaana bi saraqa aw bi gasab aw xishin aw ixtiyaal wa muxaalaqa aaya bi lim ñuy jàngal mbokk yi li ci njëkk mooy araam na islam dafa araamal lekk alalu jullit lekk alalu jullit dafa araam te tegoo ko fenn tegoo ko ci dëgg moo xam da nga ko sàcc moo xam da nga ko fëkk këf ko moo xam da nga ko wuruj moo xam ay tappale ak ay nar ak ay sos wala da nga ko dugal ci anam wu mu mën a doon loolu dafa araam ñaareel mooy xurmatu araam na ar rishwa neexa lekk ger lekk ger daf xaraam ger goo xam ne da nga koy jox buur wala àttekat pour mu àtteel la lu dul dëgg comme ni mu amee tey ci jamono nga xam ne daanaka justice amatul ci àddina bi wala rapa ci Sénégal juge yëpp li ci ëpp ay lekkatu ger lañ ñi ci ëpp ci ñoom ay corrompi lañ dañ leen a neexal ragaluñu yàlla alalu àdduna la ñuy xool nit day tooñ ba pare ñu yóbbu ko foofu ñuy àttee mais da ngay gis du fa jëlee dara mu ne la yaxillu dafa daf du dagan benn yoon xaraamun dafa araam sawaun kaana amwalan moo xam alal la aw farjan wala awra la lu mu ci mën a doon dafa xaraam loolu moo tax yonent bi saa salaam ba muy àtte ci hadisu umu salama mu ne ala innama ana basharun man de mbindeef laa wa innama yaatini alxasmu amaana kenn ci yéen ñaar ñu xuloo ñëw ci sama kanam fa laalla baadukum an yakuna alxanu bi xujjatihi amaana kenn ci yéen tooñ ba pare ñëw ànd ak moroomam ñoom ñaar ñuy layoo si ci man moom mi tooñ mu gën a neex kaddu ki mu tooñ parce que yenn saa yi nit ñu tooñ ko ba pare mu taxaw ci kanamu juge bi mais du mun a wax peut-être benn du jekku làkk bi comme Sénégal rek da ngay ñëw ci kanamu juge ñu lay làkk tubaab ñu benn waaye na la na la na la waxal te yow ñoom ñu dégg wolof lekk ci dëxin bi ba sonn ñu ut kenn mu ne mu ne moom mooy interprète sikk nekku ci ne yow mi dégg wax sax soo paree mënoo dee mënoo nettali waat le waxuma laak nag waa ji bëgg a taxaw di di di ngay wax ci beneen làkk mu lay mu lay mu lay firil en français te juge bi dégg olof ni nguñ ñu ñaaral tudd Samba Diop dëkk ci dëkk bi yaroo fi juddoo fi màgg fi lekk ci cere ji ba suur ñëw ñu ñëw wax ci beneen làkk yooyu yëpp ay tappale la beneen mooy waa ji mën na tàmm place bi tiit du xam nu muy waxee beneen bi mooy mën na bañ a mën a wax ki ñu ki tooñ nag moom tàmm place bi yàgg na fee ñëw parce que day tooñ rek bi su nekk ñu koy indi dégg na moo la gën a dégg làkk bi moo la gën a miin bërëb bi moo la gën a mën a wax surtout nag léegi triant yi ci international yi bu ñu waxee ba pare rek nga kaale leen loolu day tax yonent bi saa salaam ne leen yéen a ngi nii kenn ci yéen dana tooñ ñëw ci man gën a neex baat ba ma jël àqu keneen ki jox ko na yëg ne innama ut aataytuhu qit'atun min annaari na yëg ne daggitu safara laa ko jox joxuma ko jàmm mana mu ne leen kenn ci yéen de mën naa tooñ ñëw mu gën a neex keneen ki fa man qadayta lahu bi haqqi muslimin képp koo ñëw képp ku ñëw ci yéen ma àtteel ko àq mbokkam jullit fa innama hiya qita'atun min annaari na yëg ne daggitu safara laa jël jox ko fal yaxmilha aw li li yazarha na ko jël wala mu bàyyi ko su ko jëlee safara la yóbbu bu ko fi bàyyee safara la fi bàyyi ku ñu jox safara nag yaakaar naa ne doo ko jëriñoo kon dafa aram lekk ger xaram tey gis ngeen ger du mu feese ci biir dëkk bi daanaka Sénégal ci dëkk yi yi ñu gën a corrompu ci àddina bi ci la bokk suñ doon lim rang yi Sénégal du génn dix premiers yi parce que partout police tribunal fu nekk bureau yi ba ci mairie yu ndaw ndawaan yi tout le monde ñu utalaate liggéey ak ñëpp ay lekkatu ger lañ tout su dul ku yàlla yërëm néew na néew na tey ci Sénégal ngay ut dara te doo fa joxe dara fu mu mën a doon nag loolu daf xaraam yonent bi nee na man xashana fa laysa minna kuy wuruj bokkoo ci ñun kuy lekk ger bokkoo ci ñun yonent bi salaa salaam nee na laana allahu rashi wal murtashi yal na yàlla rëbb soril yërmande kiy lekk ger ak ki ko koy jox ñoom ñaar ñëpp yàlla rëbb na leen yow miy joxe xaalis bi ak ki ko jël yéen ñaar ñëpp yàlla rëbb na leen ñetteel ci li ñuy jële ci aaya bi mooy maalul kaafir xayrul muhaarib ka maalil muslim fil xurma alalu yéeféer alalu kudul jullit mi ngi mel ne alalu jullit lu dul ci xeex amoo droit laal lu dul ci xeex fekkoon ne jullit ñi ak yéeféer yi dañuy xeex ñu ñëw rey yéeféer yi dagan nañu jël seen alal loolu nañuy tuddee ci islam ah anfal wala maghnam ah loolu la ñu tuddee màng loolu dagan na su dul loolu nag araam na amoo droit laal alalu ku dul jullit mu ngi mel ne alalu jullit nga jël su boobaa illa anna maalal muslim lu dul nag alalu jullit asaddu xurma moo gën a araam nga laal ko li xadisu ci xadis yonte bi sallallahu alayhi wa sallam mu ne kullu muslimin ala muslim alal muslimi xaraamun damuhu wa irduhu wa maaluhu rawahu muslim yeneen bi nee na sallallahu alayhi wa sallam kullu muslimin bépp jullit alal muslimi ci jullit moroomam xaraamun araam na damuhu deretam araam na nga tuur sa deretu mbokk wa irduhu araam na nga yàq deram wa maaluhu araam na nga jël alalam kon léegi ñu yor ay jaas di nangu alalu nit ñi fan lañ ko teg ñi liggéey loo nit ba weer dee ñu lànk bañ koo fay chaque jour nga dégg ay nit yi grève de la faim grève de la faim c'est parce que société bi daf leen bañ a fay loolu fa lañ ko teg te yeneen bi ne tuur aralu jullit deretu jullit araam na yàq deru jullit xoolal journaux yi chaque jour nga gis ku ñu yàq deret chaque jour day da ngay xëy rek gis ñu bind benn wax joo xam ne nit ñi nekk ci di ngawte ngawte ca suba sa nga dégg ñu ne non journaliste yi rek ñoo ko wax dara nekku ci yooyu yëpp ci réewum l'islam dafa araam réew muy dund l'islam di àttewoo diine yooyu yëpp kenn du ko fa def boo tuumaalee jullit fekk du dëgg dañ lay caw boo mënul indi ay seede mënoo indi preuve dañ lay cawbara mokk boo léegi dootoo ko defaat rawatina lan nga koy tuumaal jàngeen ci histoire ci jamono imaamu Malik ndaw si doon sang néew bu jigéen moroomam ba muy sang ndaw si ba egg ci awra bi mu daal di dompat awra bi daal ne fii de góor ñi yàgg nañ ko lu mu waxee loolu rek loxo bi daal di kale ci awra bi ñu toog sang bi yàgg lool ndaw si nekk ci biir rek pare nga pare guma yow yàgg nga di ba jàgg mu ne dama am problème luy ko problème mu ne sama loxo moo kale ci awra ndaw si nit ñi dugg xool muy dëgg ñu ne nu ñuy def ñenn ñi ne nañ dagg loxo bi ñu ne dagg loxo jàmbur kii ñëwoon di ñu dimbali fi sabi laa ngeen di dagg loxo ñenn ñi ne nañ kuppati ndaw raw si awra ndaw ñu ne kuppati awra ku dee ah mu ngi mel ne ku dee nga ku dund la di ah problème am na kon nu ñuy def kenn mënu koo xëcc ba mu deñ te amuñu solution te nañ dem laaj borom xam-xam lañ ci wax bu dee dagg ñu dagg ko bu dee kuppati kii ñu kuppati ko kenn mënu fee toog nii nag jëmale kañ ñu dugg ci dëkk bi ku ñu laaj mu ne xaw ma ku ñu laaj mu ne xamu ba ngoon jot fekk imam Malik dafa génn bi mu ñëwee ñu indil ko masala bi mu ne leen dem leen ngeen laaj ndaw si lu mu wax bu dee da koo tuumaal njaaloo na indi seede na indi ñeenti nit ñu ne gis nañ ndaw si mu tuumaal ndax da doon njaaloo bu fekkente ne loolu amul munul indi seede ñu caw ko juróom-ñetti fukki yar ñoo ñu ne ndaw si waayo loo wax ba dee dal ah man kat dëgg yàlla comme xam ngeen ni ndaw si moom daawul toog ñëpp xam nañ ne daawul toog moo tax bi ma yegsee fii rek ma ni ma daan ne ah fii de xam naa ne yàgg naa mooy yàlla ñu ne kon da nga ko tumaal njaalo ndax mës nga koo gis ah dëgg yàlla mës nga koo gis maa dégg nit ñi di wax rek ñu ne ko léegi nag da ngay indi ay seede mu ne aw ma maa dégg rek nit ñi di wax loolu mooy léegi mooy Sénégal tey nit ñaa ngi wax rek lu nit ñi wax dëgg la loo dégg ci rajo yi dëgg la luñ bind ci journaux yi dëgg la waaw lu nit ñi wax rek dëgg la doo gis mu kenn di wax dara ba nga ne ko yaa ci teg bët waaw wax dëgg yàlla gis ma teg ma ci bët nag wax dëgg yàlla damaa dégg rek dama ko yenn saa yi nga dégg ñu ne dama koo jëlee ci weewu nag weewu nag yenn saa yi nga dégg ñu utiliser baat boobu ñu ne kon da nga ko tumaal foog ñu caw la bismillah ñu daal di tàmbali bañ ko cawee ba mu dekk juróom-ñetteelu fukki yar bi ñu ne ko ko caw loxo bi daal di dekk ah borom xam-xam yooyu daje na rek daal ne ah attention la yufta wal maliku fil madina kenn dootu fi wax rek Malik a ngi fi borom xam-xam yëpp lañ tëj seen gémmiñ imam Malik rek moo am droit wax keroog lañ ko tuddee baat boobu la yufta wal maliku fil madina kenn du fi ubbee kenn dootu fi leeral masala fekk imam Malik a ngi dund madrasatul hijaz imaamu daarul hijri Malik ibnu Anas kooku mooy imaamu Malik mooy sëriñu waa Sénégal nee nañ. kon dafa araam alalu jullit tuur deretam yàq deram jël alalam dafa xaraam ñett yépp xaraam damuhu wa irduhu wa maaluhu moo tax aaya bi mu ne insha allah wala taakulu amwaalakum bu leen lekk seen alal mbokk yi benn aaya bi nekk sunu kanam lamma axbara allahu taala fil aaya assaabiqa yàlla moom ñu leeralee ci aaya bi passé ci dars bi passé samedi leeral nañu tey ba mu leeralee ci aaya boobu àtte diine l'islam pour ñu mën koo ragal moom yàlla mu sant ñu ay mbir nañ ko def tere ñu ay mbir nañ ko bàyyi ci noonu la ba tey di continuer bayyana ci la leerale fi haadihi l aaya ci aaya bii nekk suñu kanam muy aaya cent quatre-vingt-huit hukmu aklu amwaalal muslimin bil baatil lekk alalu jullit ci caaxaan ci neen lekk alalu jullit ci neen wa annahu moom loolu lekk alalu jullit xaraamun dafa xaraam falaa yahillu du dagal li muslimin ci jullit an yaakula maala axiihi mu lekk alalu mbokkam bi xayri tiibin nafsin minhu lu dul mu ànd ak teeyu bakkanam moo la jël ne la may la ne la la jëlal nga jël waaw lekk alalu jullit te lu àndul ak teeyu bakkan mooy la mooy li policiers yi def nga droité benn oto mu dugal ci permis bi 1000 francs ñëpp jàpp ne permis kese la la jox nga ni nii gis 1000 francs daal di yëlëb 1000 francs yi daal di lemaat permis bi delloo ko ñu yaakaar ne dara xewul ji toog ñëpp dafa ne dara xewul fekk daf laa keppal ci biir 1000 francs su la joxul 1000 francs oto bi du dem loolu mooy lekk est-ce que 1000 francs yooyu chauffeur bi joxe daf koo neex neex na ko neexu ko wala nga ñëw di ut benn kayit waa ji war a signé rek mu ne la xaw ma jot ne ko seex bi jàppale ma rek xam nga man fi ma dëkk dafa sori munu ma fee del ja- ah mu ne la nuyoo murit nuyoo murit lan mooy nuyoo murit mooy nga def ni sa ñeenti baaraam képp fii dara ci baaraam bu ngand bi ni nii daal di fay bàyyi dara waa ji daal di jël daal di signé nga dem est-ce que xaalis boobu nga jox daf laa neex yu mel noonu la jullit yi war a bàyyi def xaraam ay nit tabax nañ ci ay kër ñi takk ci ay jabar ñi jënd ci ay oto te lépp xaraam moo tax gis nga njaboot gi mënut a jub kullu maalin nabata ala xaraamin fannaaru awlaa bihi gis boo amee doom mbaa nga am jabar mbaa nga am oto mbaa nga am fas mbaa nga am kër ci alal ju araam ne la yëg ne doo nelaw guddi doo wax doom ji ba mu def jabar ji doo ko tere ba mu bàyyi oto bi du daw ba indi la lu baax chaque jour mu ngi dëkk ci accident mu ngi dëkk ci yàqu paan ngay réparer rek ba mu mokk parce que ci lu araam nga ko am yàlla du def hasard yàlla du def hasard saa yoo lekkee alal bu araam doo ko doo ci jaamu yàlla mukk doo dem fajar jàkk doo julli ji jàkk jamais parce que da ngay lekk lu xaram te doo ñaan yàlla ba mu may la Saad ibnu Abi Waqaas dafa noonu yonente bi sallallahu alayhi wasallam ñaanal ma ba ma ñaanee yàlla nangu ko yonente bi ne ko at'im mat'amaka li ngay lekk na dagan boo lekkee lu dagan boo ñaanee yàlla yàlla may la at'im mat'amaka moo tax mu jëntalu dundam ay ñaanam dafa nangu ku mu ñaan yàlla rek lu mu ñaan mu am ko dégg na benn waaye buy saaga Ali ibnu Abi Talib radiyallahu anhu wa ardaahu mu ne waa ji waaye li ngay def ki ngay saaga waroo ko saaga ndax yellul ci yow nga koy saaga waa ji ne maa tey ba ci mënee dara nga def ko saat dem jàpp julli ñaar raak daan ne yàlla waa ji li mu def bu la naqaree al na nga ko ko won léegi yu jékki-jékki rek gis benn gëlëm gu rëcc ci lu fee bi ñëw di daw songu marché bi dugg ci nit ñi mel ni dafa am lu muy seet di wër di wër ba dajeeg waa ji song ko di ko mbëkk di ko mbëkk ba waa ji sedd guy am na keneen koo xam ne saad moo ko ñaan yàlla ne ko yal na yàlla guddal sa fan yal na nga gumba yal na nga nekk ci fitna ba ba ngay dee ñett yooyu ñaan yooyu la ko ñaan waa ji mujjantal ak dundam dafa gumba xale bu jigéen bu mu dégg baatam rek ca paala màgget ñëw ci yow suñ ko ne yow lii nag mu ne saa dama ñaanal ñaan musiba saat mooma dal Saad ibn Abi Waqaas mooma ñaanal moo tax foog nii rek laay dee kon nañu xam ne boo bëggee lekk boo bëggee ñaan yàlla may la lekkal lu dagan lekk alal bu araam baaxul mbokk yi ixwaan yi mu ne wa annahu xaraamun dafa xaraam falaa yahilu dagan li muslimin ci jullit an yaakula muy lekk maala axiihi alalu mbokkam bi xayri tiibi nafs lu àndul ak teeyu bakkan wa zakara nawan huwa asharru anwaau aklul maal bil baatil yàlla nettaliñ ci lu gën a bon nag ci façon bu ay nit di lekk alalu nit misaal tey boo demee ci banque yi xoolal ni ñuy lekk alalu nit ñi Senelec SDE Sonatel sociétés yi daq a sàcc ci Sénégal ñett ñetti sociétés yi ci lañ bokk da ngay dem di fay di fay timbre sa facture ñu ne la timbre deux cent ana timbre bi est-ce que taf nañ ko ci dañ ko ci def ah ana timbre ba jël buubu yóbbu ne timbre ana timbre ñi fayee ko banque dañ leen koy def ñi fay sa naat dañ leen koy def foo dugg rek ñu ñu fay loola dara loo xamante ne amul benn du benn du benn dëgg dajale ko di ko lekk moo tax lekkatu riba du ñu avancé yàlla moo ko wax ñi nga xam ne dañuy lekk riba innama yaakuluna fi butunihim naaran safara rek la ñuy lekk ba pare réew muy dunde riba réew moom du avancé mukk mukk mukk mukk mukk mukk mukk mukk xool leen banque yi doon lekk riba banque yi fa daanu gis ngeen Europe loolu mooy seen problème ba ñëpp daw dem Indonésie di jàng système banque islamique yàlla moo ko wax inna alladina yaakuluna riba la yaqumuna illa kama yaqumu alladi yataxabatuhu seytaanu min almas lekk riba dafa xaraam justice nag ñu tëral ay système yoo xam ne dañ ciy lekk alalu nit te du ko yëg wala du ko neex mais munu ci dara ma ne boo xam ne ne sa banque salaire yi dañ koy dañ koy def la dañ koy virer ci banque ya chaque jour nag léegi yow boo demee di fayeeku banque bi am na lu mu ciy fi lu mu ciy téq te buñ la ko joxoon nii day mat yooyu yëpp ay système la yu ñuy sàcc alalu nit ñi te def xaraam bu yeboo loolu mu dugg suñu bopp kon yooyu ay mbir la yoo xam ne suñu borom subhanahu wa taala daf ko tere surtout nag tëral ay mbir yoo xam ne ay système la yu ñuy lekk alalu jullit yi alalu nit ñi te nit ñi duñ ko xam mu poussé nit ñi ci ñuy wuruj di lekk ger rawatina nag ñi nekk ci tribunaux yi magistrat yi xoolal am na fi benn année boo xam ne ñu ngi doon wax lan problème mu lan la woon ay magistrat yu ñu yu yu lekk ger bañ leen dàq wàcce leen seen place attekat yi suñu nijaay bi toog bu ñu doon nettali benn waay bu sàccoon ci benn société xaalis bari ñu jàpp ko tëj ko nijaayam dem seeti ko ne ko waaw yow ana xaalis bi yëpp da nga ko lekk mu ne noonu am na lu def ñaari nga jël mu wax ko tant million laa jël mu ne ko jox ma ci trois man laay dem jël ko mu wax ko jox ma ci vingt sàcc lu bëri nijaay ji ne ko jox ma ci vingt mu ne waa demal place sàngam nga jël mu ñëw jël vingt vingt millions mu def ko ci saak mu ñëw ci ci ci juge bi mu ñëw fekk waa ji di di di di bëgg a dem mu ne ko dama la soxla waa ji ne ko non aw ma jot aw ma jot lan la mu ne ko non man ñaari minute rek mu ne ko waxal mu ne ko non dugg ci biir yu tamit nag mu ne ñu dugg ci biir mu tëj mu ne gaawal nag damay dema mu ne non xam nga sama frère boobu mu ne non kooku xam nga ne mu ne non damay doon vingt millions mu ne i xaaral mu tëj verre yi mu ne ko waaw defal ndànk ah defal ndànk mu tëj bunte mu ne ko ah lan la mu ne ko vingt millions laay no pour nga dimbali mu ne def ginnaaw juróom fii si bul wax nag demal demal demal jour acte bi jot rek mu ne ana kii waa ji génn gis nga wala vingt millions noonu la waajoo jigéen nii loolu moo tax fii loolu moo am ay ku sàcc milliard boo ci sàccee joxe ci vingt millions est-ce que jeex na ñaata des boo génnee nekk fi di noos loolu nag mooy Sénégal da ngay sàcc loo xam ne da nga ci mën a jënd ub gémmiñu ñëpp bu seen wax ñëpp noppi boo génnee jaar fii dem sa yoon kenn dox dara xam nga ne vingt millions ku koy joxe sàccoo lu ndaw loolu moo tax société yi Sénégal yëpp tëj benn société du dem directeur général bu ñu ko jox mu dribble xaalis bi yëpp daw wala tëdd ñetti fan kaso neexal kii daal di génn moo tax Afrique day yéex a avancé Afrique day yéex a avancé waaw te loolu lu garaaw mooy kenn du ko tuddee dañ naan dafa détourné te boo ñëwee ci jàkka ji sàcc ñaari paire daal la ñu dóor ne sàcc la ñu dóor ma ne mais la ñu ne dafa détourné gis ngeen loolu la même ci l'islam tey gars yi xeex ci l'islam dañ leen di tuddee ay terroriste ñeneen ñi xeex comme rebelle yi Casamance ñu ne rebelle kenn dox terroriste rebelle gis ngeen gis ngeen bu fekkee jullit la nag billahi Casamance bu doon ñi fa nekk ay jullit lañ ñu ne ay rebelle lañ ay terroriste lañ ay fondamentaliste ay extrémiste et puis moo yoo xam ne la hawla wala quwwata illa billah asamaan ak suuf sax atta nañu ko waaw waaw islamiste islamiste terroriste mu nga kon yii ay mbir la yoo xam ne sunu borom subhanahu wa taala lii moo tax mbokk yi ñu war di jàng alquran parce que alquran mooy defar suñu dund parce que ah lii nii dund gi la yàlla di defar pour nit ñi ku nekk nga xam li nga war a lekk li nga war a am sa ak ak sa mbokkum julit nga xam yow bis boo jëlee dara bis bu ñu la tegee fenn ci benn place nga xam li nga war a def te bu fekkente ne nit ñi duñ ko jàng kenn xamu ko yow luñ la jàngal mooy système am alal loolu lañ la jàngal loolu nga jàng depuis jardin d'enfant ba université ba am ci doctorat ba pare nit ñi ñëw jox la leen looy def loolu lan loo fay def muy profito di lekk rek gis nga soo jàngee histoire yonent yi ak sahaaba yeeg ñi leen toppoon ñoom ñëpp ñu jiite l'islam billahi wallahi taala yi kuñ ci joxoon xaalis doo ko jël jàng leen histoire sahabatul kiram wala yonent yi puisque lu tax xam nañ lekk lu xaraam li ci nekk ëllëg boo dajeeg sa borom lan nga lan moo la ciy fekk xam nañ ne adduna day jeex boo fi amoon ay conteneuru milliards bisa ngi ñëw nga bàyyi ko fi nga dem ci yàlla ay loxoy kese nga nar a dund éternellement ban njëriñ la après la alal bi am jël leen misaal ci ay buur yu fi nekkoon jël leen Fahad bin Abdul Aziz jël leen Hassan II bu leen Senghor sori ana lim fi ana li mu amoon bàyyi na ko fi dem na ci yàlla ay loxoy kese est-ce que lim defoon fii mun na ko sëwe est-ce que lim fi bàyyi mun na ko amal njëriñ loolu mooy wax ci kon jullit day góorgóorlu mu nekk muy lekk lu dagan mu bañ a tooñ di lekk alalu nit surtout nag bu la yàlla naftoo nga nekk attekat yonent yàlla muhammad alayhi salaatu wasalaam nee na attekat yi ñett lañ ñaar ñi moom safara lañ jëm kenn kaa ngi ci danger kenn ki mi ngi ci danger ñu ne yonent bi ñan ñaar ñoo jëm safara mu ne ki xamul dëgg bi atte ko safara la jëm ñu ne ñaareel mu ne ki xam dëgg bi bañ koo atte safara la jëm ñu ne keneen ki mu ne ki xam dëgg bi atte ko kookoo ngi ci danger ëllëg ak si biir mën nañ koo neexal léegi mu bàyyi dëgg bi gis nga te xoolal fii xoolal àtte bi fii suñ borom subhanahu wa taala mu ne tëral nañ ay système yoo xam dañ ciy lekk alalu doomu aadama yi li yaxkumu lahum bi gayril xaq ñu leen di àtte lu dul dëgg di lekk alalu nit ñi seen alal ñenn ñi ci ay fen ci fen la ñuy lekk alal boo demee tribunal nga fekk fa ay paa yoo xam ne xam nga luy seen liggéey luy seen métier boo bëggee se ku la seede rek nga ñëw ku nekk nga fay ko deux mille wala deux mille cinq cent wala cinq mille ñoom ñaar ñu ñëw di la seede waaw kii kii waaw diw mooy papaam waaw diw mooy yaayam kay dëgg la waaw bisu sàngam la juddu waaw ci dëkku sàngam ci place sàngam ñu ne waaw yéen ñaar yéenay seede yi ñu ne waaw indi leen seen carte d'identité ñu daal di indi ñu daal di seede ñu daal dem toogaat di pointé keneen ñëw ñu demaat est-ce que ñooñu wóor na leen wóor yàlla ne yow mii di wax nii at yooyu ngay wax nañ nga juddu loolu nga juddu boo demee tribunal bi nekk nii fekk fa ñoo xam ne loolu rek mooy seen liggéey seede seede di fen rek ku ñëw ñu ne xam nañ fu mu judd xam nañ ba mu bis la judd xam nañ papam xam nañ yaayam fekk ci ay instant yu ndaw lañ ko waxante loolu baaxul dafa araam jullit du dund ci loolu benn waaye dafa rey nit mu daw dugg ci dëkk bi di làqatu mu ñëw fekk borom kër gi toog ci digg kër gi di jàng alxuraan mu ne ko sëñ bi damaa rey nit ñaa ngi nii di ma nëb di ma dàq bugg maa rey te damay nëbbatu mu ne ko duggal ci ñax mi waa ji dugg ci ñax mi ne teg gaa yi yegg ñu ne ko sëñ bi amul ku jaar nii kuy daw mu ne ah kay anamu mu ne leen mu ngi ci biir ñax mi ñu ne ko ku rey ni dina dugg ci ñax ñoom ñu continuer daw waa ji rey nit génn ba mu yégée ne gars yi dem nañ ba sori mu génn di lox naan waa ji yow ma ñëw di nëbbatu ah ah nga naan yéen maa ngi ci ñax mu ne ko ah mu ne ko dimbali ma sama fen bi moo la moo la nëbb danga ma dimbali de sama fen bi ma fen moo la nëbb yow da ngaa yaakaar ne damaa fen man nga def di nga rey nit ba pare yow di ma fen loo ci ñax yi nga dugg ci ñax yi nga laa leen di wax yaa ngi wala ñooñu sa xeeboon nañ loolu ne ay fen la am na ku demoon di jàngi hadis mu gis ki koy jàngal dafa egg rek dañ ko ne dafa ne dama bëgg a jàng ñu ne ko demal ci benn dëkk fële am na benn sëriñ bu fay jàngale mu ñëw gàddu téeréem ñëw gis sëriñ bi di nax di nax xar mi xar mi rëcc sëriñ bi yor lekketu kese naan xar bi bar bar xar mi ñëw rek sëriñ bi teg lekket bi ne ko karaastee mu xool gisul dara rek mu génne jël téeréem di dem sëriñ bi ne ko eh dina ngaa jàng si woon mu ne ko waaw waaye yow doyoo ma kuy fen xar day fen ay nit kuy feni xar day feni nit gis ngeen de kon nañ leen ragal yàlla lii moo tax ñu war a jàng diine lii moo tax ñu war a jël jël alxuraan mu nekk sunu adduna ak sunu àllaaxira ci rek moo ñu mën a jubal leneen mënu ñu jubal bu ñu demoon jàng ba am ay doctorat ay licence tamit fekk jànguñu alxuraan bu ñu ñëwee fii li am Sénégal donc moo fi continuer kon aaya baa ngi noonu incha allah moom la ñuy jël léegi bu soobee yàlla أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تاكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون sunu borom subhanahu wa taala mu ne wala taakulu ngalawaay bu leen lekk amwaalakum seen alal ngalawaay bu leen lekk seen alal ah kon xanaa dañ naan yàlla daf ñu tere ñu am sunu alal ba pare bañ koo lekk mu ne déedéet wala taakulu bu leen lekk amwaalakum seen alal baynakum seen diggante bil baatili ci caaxaan ci neen lekk alalu nit ñi seen diggante ngeen di lekkante ay alal te yëpp ci neen la tegu neen neen business da ngay dégg business rak tak da ngay dégg sax Sénégal ñu ne xaalis kenn du ko liggéey dañ koy lijjanti ku la gën a mën a ëpp alal fii nekkul lu mu liggéey mais daf ko lijjanti dóor dàq waaw jël jël lii jël bukki suuli bu loolu la ñuy wax jël bukki suule bu ah yàlla bu fekk bukki di dund nag tey loolu moo fi am loolu daf xaram yàlla nee na bu leen lekk seen alal seen diggante ci caaxaan al baatil lan mooy baatil mooy xilaaful xaq lu dul dëgg yaata tey ngeen gis ci ay marchandise yoo xam ni faux la waa ji la koy jaay lu mu lay wax vrai la waaw bes yenn saa ñu bind ci bes kii première qualité la kii nangam la peut-être deux jours fekk du dëgg nga dem di dàq ji waaje fekk dem na yoonam waaw fooy mujj mooy toog nga dàqante moom ci police yi ci tribunaux yi maa ngi fàttaliku ndeysaan am na benn sàcc bu ñëwoon suñu koñ daal di sàcc benn kuy yóbbu ko ba mu am ay fan rek waa ji am fu mu demoon ci biir dëkk bi rek gis waa ji yow kuy bi di ko jaay moo waa ji ñu jàppante ñu indi kuy bi fii ci police bii ñoom ñaar ñëpp ku nekk wax xam nga lu ñu leen wax léegi kuy mi bàyyi leen ko fii yow lundi yow yaa indi ngooñ yow mardi yow yaa indi ngooñ yow mercredi nga indi ngooñ yow jeudi nga indi ngooñ yow vendredi nga indi ngooñ yow samedi nga indi ngooñ noonu lañ leen def quoi bis bu nekk ñu ne kii yow yaay lekkal xar bi tey ba fii ma toog ak yéen paa bi xamul kuy ma fu mu mujj benn bis dañoo rek ñu police yi ne ko kuy mi sàcc nañ ko sudaas gisatuñ kuy bi gisatuñ kuy bi mu ne xanaa ñu ne gisatuñ kuy mi mu ne léegi nag ñu ne ko gisuñu kuy mi ba léegi fii ma dem góor gi gisul kuy mi mu ngi fii maa ngi moom ñoo dend koñ xool loolu ngay gis nit koo xam dañ ko tooñ tooñ boo xam ne soo ko ne demal mu ne lu ma fay uti foo ma demee dem dama fi jëlee lu ma neex damay perte sama lii wala daal di toog ndeysaan gis nga musiba weesuwul loolu lekk alal nit ñi ci caaxaan ci neen ci laaful xaq lu dul dëgg loolu dafa araam yàlla daf ko tere al baatil lura az-zaahibu az-zaa'ilu mooy lépp luy neen lépp luy caaxaan yàlla dafa tere ñu lekk alal yi ci diggante mi misaal yu mel noonu mu ne watudulu biha ngeen koy yoor ngeen koy dugal ilal xukkaami jëlee ko ci attekat yi xoolal fii baatu watudulu xam ngeen lu muy tekki mooy al idlaalu shay ilxaahu mooy nga sànni dara maanaam ngay def dara am loo loo loo loo ci boole am loo ko accompagner damay dugal sama këyit fenn ci biir këyit yi ma dugal ci cinquante mille daal di koy dugal ci enveloppe bi daal di koy dugalaale ci biir waa ji may rexleel këyit yi bu ubbee këyit yi mu gis cinquante mille nu muy def jël cinquante mille boo xam dugal ci poosam daal di may réglé li ma bëgg su ma dugalee këyit yi kase cent cinquante mille yi dina fa am juróomi weer loolu mooy wattu dulu mooy nge baat bi ci arab mooy soo soxlaawee ndox ndox mi nekk ci teen nga am baat pour nga am ndox lan ngay booleeg baat bi buum loolu mooy wattu dulu mooy ngeen di yoor pour nga am ndox da ngaa yoor baat bi ànd la ko buum tey boo ko yoorul woon ak buum doo am ndox ba ba ngay dee dañu tere ci l'islam nga am problème ci justice ñu lay àtte nga dugal dara ci suuf nga bàyyi ba suba lañ lay àtte nga seeti nga seeti juge bi ci guddi gi ñëw ne ko man nga war a àtte suba maay diw mu ne ah damay doon ñetti nag yi laa la indiloon ndax ma amoon problème ak borom tool yi ne ñëwoon sama tool sama sama nag yi ñoo lekk tool bi léegi nag suba la ñuy àtte indil naa la ñetti nag moom la nuyu si rek nag nag yi moom xam naa ne mun nga ko def supp rek léegi loo bëgg foofu ñetti nag yooyu nga joxe ah yow la dëgg wala waa ji bañ a bañ wax wax loo xam ne loolu mooy sunu musiba tey moo ne yàlla mu ne watta dulu ngeen di yoor dara ilal hukaam yi jële ko ci attekat yi jëme ko ci attekat yi lu tax li taakulu pour ngeen lekk fariq pour mu lekk fariqan kuréel min amwaali naasi ci alalu nit ñi bil ismi ci bàkkaar te wa antum yéen taalamuuna xam ngeen ni lii ngeen di def du dëkk te ngeen koy def parce que parce que pour lan pour am dëkk te jamono bi ngeen koy def da ngeen a bëgg rek li taakulu pour ngeen lekk pour mu lekk fariqan benn kuréel ci yéen di def loolu min amwaali naasi ci alalu nit ñi jëlee nañ ci mujaahid ak saad ibnu jubayr ikrama Hassan Qatada Saadi Muqatil Abdurrahman ibnu Zayd annahum ñoom ñëpp ñu ne qaalu ñu ne laa tuxaasim wa anta taalamu annaka zalim laa tuxaasim bul dem tribunal mukk di atte ji te yow wa anta taalamu yow yaa gën a leer ne anta zalim yaay tooñkat bi foo jëm xam nga ne yow yaa tooñ leer na la sa diggante ak sa borom yaa tooñ ba pare ngay dem naan nañ ma at nañ àtte waaw xam xam nga yaa tooñ boo jëm toogal buñ la joxee fii dëgg fii tey yawmal qiyaam nag kan mooy ñëw di solo solo la robb avocat avocat xoolal avocat avocat ci lan lay dund ku rey nit léeg-léeg ma gis ñu ne dafa am benn jigéen bu jël doomam rey ko waaw avocat bi ñëw ne non xale bi bu muy judd indiwul bakkan la ilaha illallah dafay juddu ba pare indiwul bakkan bon mu def erreur daal di koy suul parce que xam ngeen ne kii jàngul xamul lool ayna allah ana yàlla avocat boobu est-ce que fekke na bi liir bi di judd ah fekke na ko xam na ne liir bi andi na bakkan wala indiwul bakkan xanaa gis ko alquran mu ne wa isal mawudatu suilat bi ay zambin xale bi dañ koy laaj yowmal qiyaam dañuy laaj yaay waaw kii ban bàkkaar la def ba nga rey moo tax yonent bi mu ne attekat yi genn wàll gi yëpp safara lañ jëm moo tax boroom xam-xam yi xam diina yëpp démb kuñ ci doon kay atte da nga naan mukk ci àdduna du ma atte mukk mukk parce que xam nañ xoolal ñun nag kuy jàng sax dangay dégg sa yaay mu ne la wala sa wal nga kii wal nga denk magistrat gis nga ñoo ñoo fi dund fi dund élection yi passé dégg ngeen bu dee dëgg la yàlla xam dégg ngeen suñu magistrat yi li ñu wax lan lañ fexe ba góor gi jàll yéen ñëpp dégg ngeen liñ ci waxoon kenn du ci delluwaat mbokk yi lekk ger daf xaraam alxuraan a ngi nii moo ko araamal lekk alalu nit ñi ci ay business ay tappale ay nangam nangam dafa araam gis ngeen courtier courtier dafa xaraam da ngay gis ñoo xam dañu am dara di ko def nga gis ñoo ñoo ñii ñëw ne damay jaay sama kër ñii ñëw ne bismillah maay dem indi ci client bi indi ci ay tappale ñii di luwe ñii indi ci indi ci ay tappale yu bëree bëri ci biir réew mi daanaka ku ciy dund pour nga lekk lu dagan tey lu doy waar la pour nga lekk lu dagan ak a doy waar ak a yéeme waaye nag ngay dundee sombi te mu dagan moo gën ngay lekk yàpp te mu xaraam sombi bu dagan wala fonde bu dagan sëñ bi moo gën yàpp bu xaraam te nag loolu rek moo ñuy indil problème bañ a lekk sombi boobu ak fonde bi bëgg a dëkk ci yàpp bi guddeeg bëccëg foog nga dugg ci lu xaraam waaw foog nga dugg ci koo wax mu ne waaw teg ci dara teg ci dara nag waaw koy liggéey def ci def teg ci dara xam nga ne ci dëkk bi moom tey boo deful lii dara ah loolu nañ ci bàyyi xel dafa araam yàlla subhanahu wa taala def ñu koo tere moo tax mu ne li taakulu pour mu lekk fariqan benn kuréel benn mbooloo taaifatun benn kuréel lan la ñuy lekk qitaatun min al maali benn partie ci alal bi loolu dafa araam min amwaali naas yi ci alalu nit ñi tey nit ñi mënuñoo am dara ndax dafa am ñu ko ñu ko jël di ko lekk yàlla nee na nag li ci doy waar mooy yéen ñii jamono ba ngeen koy lekk xam ngeen ne yéen a ngi def bàkkaar al muraadu bihi huna li yàlla namm fi ci baat bi mu naan bil ismi bàkkaar mooy bir riswa mooy ci ger wa sahaadatu zuur ak seede fenn benn waaye ñëw ne la nañ dem police bu ñu demee nga seede ma garaaw bu ñu génnee ma régler sa problème soo dem nga ne ko su ma demee lu may wax mu ne noonu ne neen waa ji fekk nga bi may dóor rek bi may saaga am na benn waay boo xamante ne noonu lañ ko def tribunalu Kaolack police Kaolack mu tooñ ba pare dem ut benn waay bu ko seede fekk yàlla def na moom mi moom mi nar a dem di nekk naan day seede ji musul gis ki ñuy wax ne moo tooñ commissaire bi nekk ku muus mu ñëw rek ànd ak seede bi nag ñu fëxër fëxër yi ñëw taxaw commissaire bi daal di ne waa ji yow fekk nga bi waa ji di dóor kii di ko saaga mu ne fekk naa ko mu ne fekk nga ko mu ne wallahi fekke naa ko mu ne donc d'accord léegi rek mu daal di jël waa ji rek fekk wat xama xamaguñ kan la de mu jël mu jël nit ci waa ji rek indi ko ci biir mbooloo bi dugal ko ne ko rek daal di ne waa ji waa kaay kaay xoolal ma ana waa ji fii bu fekkee xam nga ko waaye ñëw taxaw nag xamul lu lu muy def rek mu jaaxle mu jékki-jékki rek daal ne benn kii la rek commissaire bi ubbi nopp bi ku jàpp kii la est-ce que yow yow la ay daa man kay xaw ma sax kii li muy wax fekk ki ki njóbbu police waxoon na ne commissaire wallahi waa jooju ñi di nar a wax ne man la xamuma musuma gis te boo ko wedd boo weddee defal système bii rek naa nekk ci biir mbooloo mi rek nga woo waa ji ne ko ñii kan la ci mu ne musuma gis mu ne gis nga bi affaire bi leeree nag léegi mu ne ko gis nga da ngeen maana doon jàpp tëj ma nii rek nag la ñuy tëjee nit ñi nii kese parce que waa ji bu ñëwee ñu ne ko kii la ak kii ñoo xuloo rek léegi rapidement leer na mais buñ doon def loolu am na fi ñu bëri bëri billahi wallahi la ñuy seede xamuñ ci dara ki ñuy seede sax mosuñu ko gis am na ci koo xam ne dafa dem sàcc alalu jàmbur ñooñu moo ko moom ñu dem ci benn buur buur bi war leen a àtte ku mu woo laaj la yow koo jëlee lii ki ma la dénkoon alal mu ne waaw wallahi moo ma dénkoon alal fan la la ko dénkee mu ne ko ci jàkk ci man ak moom rek ak yàlla ma dénk ko sama alal bu bëri jàkk ci mu ne ah mu woo waaj mu ne ko kii xam nga ko mu ne kii mosuma ko gis rek moom lañ dénk alal bi de mu ne wallahi kii mosuma ko gis yoo xaw ma la nga ne ma nga dégg yoo xaw ma la xaw ma la buur bi ne ah xamoo ko mu ne kii gisum bi mu ne waa d'accord léegi yow mi dénkaane woon alal bi toogal waaye léegi yow lañ joxoon alal léegi demal ba ci jàkka ji nga ñëwaat am toog fii di la xaar demal te ñëw waa ji ne jàkka ji daa sori mun naa ko kay dëgg noo xam ne jàkka ji daa sori kon kay yow la moom nee nga jàkka ji daa sori ne moom nee na ko ci jàkka ji la la ko joxoon yàlla yàlla léeg-léeg jàkka ji daa sori noo xam ne jàkka ji daa sori kon sa yow la su génn xaalis bi keneen ki jabaram dañ leen jox benn kees ndekk nit moo nekk ci biir nit kuy dund ñu ne leen néew la yóbbu leen ko ba pare ngeen ñëwaat xam nga jigéen attanu ko dafa diis bu nag bu ngeen ñëwaatee fii dinaa xam kan moo jël alal bi ñi jël alal bi ñoom ñoo njëkk ñu jël alal bi moo njëkk a jël ak jabaram ñu njëkk ci bëccëg rek ba dem ba ci suuf garab gi rek mu ne tegal ñu noppalu nijaay kaay mo wax la dëgg dellool alalu jàmbur ki nekk ci kër gi bi ngi dégg delloo laa doon jàmm xam nga ne li ngay def yaa ngi may solal man attanu ma lii waaye noppi rek bu ñu paree amul problème dinaa la jëndal loo bëgg ay ñu ne ñeneen ñaar ñi yegg keneen ki ak jabar ji ñi dénkaane woon ak jabaram di leen ñoom nijaay bàyyi koog yàlla du ma ko bàyyi maa moom alal bi ñaari nit ñooñu nag ñu yëkkati leen ku nekk ku nekk wax li mu dégg ñu ne waa ji indi xaalis jàmbur indi Sénégal tappale kese moo fi nekk ak triant ak njublang et immeuble yi ngeen di seen fii oto yu ñuul yi ngeen di gis genn wàll gi yëpp billahi wallahi dara leeru ci mbokk yi lii moo doon dars tey su ñaan yàlla subhanahu wa taala mu defal ñu tawfiq su amee ay njuum te ñu ngi koy jéggulu suñu borom asalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakatu bismillah